yaa xam maa ngi lay woo jot naa sa jabar wala leneen mais fu ma la fekk danaa dëgg sa ndey yow yaa xam naankatu sàngara nga doxaankatu caga nga ko ñàpp sa ndey nga di tuul nekk wat say koy ci kanamu Marème Faye danaa kat sa ndey ñu jëlee la fi nga ne doomu xaj piir nga boo amee fit nag danga may porter plainte ñu dem ci yoon sa lëfal ndey géwalu xaj bi nga doon jaamu xaj nga ku ñàpp sa ndey nga yow yaa xam far ba ngoom danaa toj seen cortu ndey ba ñëpp xam ne Dakar naa seen ndey yéen ñaar ñooñu yow yaa xam naan sàngara ak doxaan caga mooy sa métier ku kat sa ndey nga Macky Sall warut a nangu sax nga jege ko danaa Dakar seen ndey yow yaak far ba yéen ñi ma tudd neel ba ngoom bu ma amoon kéem danaa ko saaga naa ndeyam te danaa toj cottu ndeyam géwal bu xaj bi mu doon jaamu xaj bi mu doon lekkatu riba bi mu doon lekkatu suuf bi mu doon ku ñàpp ndayam la suufu ndakaaru sëpp dagg na ko jaay ko mais danaa tegal ndayam moom moomu moo mérité dem kër yi fa Karim demoon mu tëdd fa te dees na ñàpp ndayam tôt ou bu dee day nekk di yàq rek danaa cot cottu ndeyam jox ko kay live bi maa ngi koy yónnee Aliou Ngoye pour mu jox ko président Macky Sall yéen ñaar fu ma katte seen ndey ba bàyyi leen dootu leen doon dara sa lëfal ndey baa ngi nii di ma woomee cottu ndeyam trois di du matin maan laa ndekkee cott ndey farba ak ñi mu àndal ci sàll bu fajul li may faj ñëpp lay boole saaf seen lëfi ndey ci biir géej gi building beeg bi ñu sàcc ak xaalis bi ñu sàcc ak li ñu sàcc ci teer beeg lépp lay dugal ci seen cott ndey saam leen ñoom ñëpp def ci géej gi doxal ma live bi xalif général de mourides dajjay ndey ñii nit ndax ne li ma daj ci ñoom danaa xott seen bujju ndey ba ñu xam ne du ma seen morom seen cottu ndey